waaw nazala wàcc na fi abi taalib ci abu taalib indama xadaratu ba mu ko teewale al faatu faatu abu taalib am ne bay bëgg a faatu dégg nga ataawa dikkal na ko rasul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa qaala mu waxloo ñu ko yaa am yow bàyyi tax xul waxal kalimatan baat waaye datan benn ahaaju dana ma laye biyaa ci moom lakk ñeel la la fa yàlla tabaraka benn wa taala kawe waxal benn baat rek boo xam ne soo ko waxee dégg nga danaa xam lay waaw sama kanam borom Mm, ba nga dugaal ñaan de kul waxal laa ilaha amul benn bu ñu a jaam illallah lu mooy yàlla muhammadu muhammad rasulullah yonent yàlla baat boobu rek de soo ko waxee daal mm, da nga mën a dugaal jana fa jaamu daal dikk na abu jahlin abu jahl daal dikk wa jalasa mu toog bay na hoo diggante waaw abu taalib wa bay na rasul ak diggante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa saara mu mujj yaqul di wax la woo ñeen ko mu ngay wax abu taalib naan ko moom abu jahlin laa tarxab bul bañ an millati abdul mutalib ci diine abdul mutalib wa abdu manaaf ak diine abdu manaaf mut dee alala diine aj daalika si diine si diine say maam de ñoo ñooy say maam diine jën jàppoon ba dee ca na nga dee ci diine jooju falam yaqul waxut abu taalib abu taalib al kalimata baat bare abu taalib nag waxut baat ba waa waxut laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullah faalaha dégg nga nuur عليك مبارك يونتي بسم الله السلام دي مرام يونتي بخير تينكو واخال بارب دي فقال مو واخلو نيلكو بوم يونتي بغنا مو واخ لا محمد رسول الله لك تينا بو طالب واخ يونتي نكو والله ما نغي ان شاء الله دون الخوف بودون رغال من سبتين تي سنغاني ولا ارا غاتي ان تعيرا ان تعيرا اي بل انت ياو واو ويخ واتكا اك سي مبوكو ان اباكم نزن باي جزاعات تيد ناندل موتي يمنو دي لقلتها كون موقره damay bañ sama waxee baat boobu ñu ne seen baay dafa dem bay dee daal di tiit waaw moo tax mu wax waa baat bi kuroon moo wax baat buum de waaw waaye damay bañ ñu ngàññee leen na ragal rek moo tax mu wax ko walakin waaye nag ida qulta ko waxee alaan léegi tabqaa dana des lakum ñooy leen subbatun ak ngàññi de su ma ko waxee ba pencam yàlla dañ leen di rek naan ragal tax mu wax baat boobu dem naa bay dee door a tuub fa xaraja mu génn rasul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala mu yasmaata déggum ñu ci moom alkalimata baat ba de yonent daal di génn Abu Taalib waxut baat boobu wala yonentu déggul ko daal baana zaalik gannaaw loolu ataaw dikkal nu ko an Abbas Abbas wax loolu ñeel ko ne laqad qaala wax na alkalimata baat ba de Abbas daal di génn ne yonent bi waaw Abu Taalib wax na baat ba qaala wax na rasul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko de na wax na ko mu ma jéggul lakk ñeel la de unha fekk wuñ maan daalika ci loolu ba Abu Taalib génne àddina nag waaw te li wér mooy toujours ñaari baati seere yi dégg nga <clears throat> dégg nga ba mu génne àddina ci la waaw yonentu na ko danaa la jégalul yàlla lu ma yàlla xaay fa qaala moo baadu saxaabat ñenn si saxaaba yi ñu kon na sax fu danañ jégalul li bàyyi naa ñeel suñu bàyyal mushrikeen yi dafay bokkaale de ci la dégg yenn saaba yi ne ñu ne danañ jégalul suñ bàyyi waaw ci kéeféer ndax yonentu mu nga jégalul bàyyam Abu Taalib de fa nazara mu daal di wàcc haajil aayatu bi la laaya dégg nga mooy nabi ñe yonent bi wala dina gaa ñi nga xam ne amunoo gëm nañu anes tax furoon ñu jégalul li musrikiin ne yi loolu de wax nañ li rasul yonent bi sallallahu Abu Taalib kaana nekkoon na yoxe bu ko dira bëgg woyen solo ko mu di la dimbale wakaana nekkoon na yaxinu di ñeewentaale ko ci yow bi ma nafaatu woon loo ko jëriñ ndax na la daan na la dimbale yërëmoon na la lool loo ko jëriñ xaala mu ne wajëtu fekk naa ko fi wasti naari ci digg safara faaxrajtu ma génne ko xataa saara bu mujj xaarijan naari ci bitti safara digg safara la nekkoon ma génn ko ba ma ca mm, mm, bitti fii dax daayin ci tepp tepp mi naarin safara de baqee des na aqdaam waaye ndëggam faqat dong xéelati mooy li nga xam ne fi naara mu ngi safara maanaam mu ngi ko ci bitti ba tànk yi rek moo dugg ci safara walakin waaye nag bi baqaay aqdaam yi ci des ndëggum yi fi naari safara dégg nga dégg nga waa yu xallaa danañ baxal dimaaxu ak ak wala boog yaxli dana bax dimaaxu yuuram wa dégg nga yaxli dana bax dimaaxu yuur wa de tànk yi moo nekk safara mu ngi ca kaw waaw te ci digg safar la nekkoon waaye nañ ko ba ci kaw tànkee lakk waaye bax yu gaa ngay bax de haza li huwa moom asaxihu mooy lu fi islam abi taalib ci islam abu taalib <laughs> lii mooy li ci wér mooy duggul ci lislaam yonent bi sàkku ci moom mu gëm yàlla mu weddi dégg nga su nag boobu Abbas nee na tudd na baari seere waaye xam nga ne Abbas seereem duñ ko nangu jamono ju ndax jamono boobu duggagul ci lislaam dégg nga ci lislaam de moo tax yonent ne ko dégguma ko ndax waxu ko ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu nag ba mu dee yàlla nangu lislaamam de dugal na ko sawara tànkee moo di lakk waaye ma ngay baxal yuur gëre te lu ne defal na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee ki nga xam ne bàyyi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam la bokk ci askan gu tedd di sang ca mag taxawu yonent fu ne ne ko wallaahi lan yasiloo ilayka bi jamihim taw wasada taxta turaabi dafinan fekk suuluñ ma ci ron suuf si duñ xekk si yow seen mbooloo du yegsi si yow de aar ko kaaraange gu nekk moo mën a dugg sawara rawatina yow mi nga xam ne bokkul yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dara xam nga ne waa boo boo boo boo ci yoon rek mbugalum yàlla wàcc sa kaw de mbugalum yàlla ba mu wàccee ci ñëpp war a tiit xam ne ci yoon rek la waaye xamul maa bokk ci askan ak diw walaas nag diw wala maay diw ak diw wala maa mel nangam ak nangam fa yàlla de yàlla daan jub rek ku jub daal texe ku jubadi texaat yi lool daal mu am ci péeb yàlla ba haga li woo moo say wu ma wér fi islam abi taalib ci islam abu taalib de wa ahlul mahabbati ñun cofeel min ahlul bayti ci waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yedoona dañuy woote islaamu jébbalu ko abu taalib ñi bëgg waa kër yonentu mbëggeel moo leen jàpp bañ ne abu taalib tuub na walakin wawi wax joji ma saaha werude de muni lool werud waaw li werud dara mooy tuwut lama qaalo bañ waxee nag noom naka ñoom yastaxfiroon danañ jégalul li abayam yeen seen bayyen musikine yooyu bokkaale nasara ci la wàcc nag moom laay ji waaw yàlla ne ma kaana yellut li nabi ñale yonanti bi maan baxi yellu li nabi ñale yonanti bi wala dina gaa yi nga xam ne amoon gëm nañu ay astafuroo ñu jégalu li mu si gën ñeel way bokkaale rek laa wax de waa wala kaanu di la nekk ni ulul qurba di borom ak jege ñaare ay zawi xarabatin di borom ak jege ñaare rek laa wax de min baadi ma tabayyana gannaaw bu mu biree loom ñeel leen annahum ne ñoom asaabul jahim ñoo ñooñ jahannama ay asaabu naari ñoo ñooñ safara maatoo dee nañ alal kubri ci yéeféer ba ngeen xamee ne seen mbokk yi waa safara lañ ndax dañoo dee ci yéeféer luñ leen jege jege amu leen waaw yàllu ci yéen ngeen leen di jégalul yàlla amu leen droit boobu de bu leen leen jégalul yàlla sawar la ñu jëm te jégalul yàlla mooy yalla baal ko dugal ko aljana yàlla ne sawar la jëm ne na ko dugal aljana yaa ngi bëgg yàlla weddi boppam de waaw te loolu yàllut kon faram tam faram tam xadisatul xaraabatun benn jege ñaale baynakum seen diggante wu baynum ak seen ak diggante mbokk yooyu laa tastaxfiru bu leen jégalul lahum ñeel na rek laa wax de moo tax islam waaw mooy lépp moom la jullit bi war a ci kanamam waaw waaye sama mbokk la sama nangam la tax mu wuteeg waaw njubum yàlla nga di ko ci faral xam nga ne loolu tegoo ko ci dëgg lum la jege jege lum nekk nekk sa mbokk waaw mbokk ak lislaam ak jege woog lislaam moo gën a fort baxawul ci yoonu njub bëgg na àdduna bul ko jégalul yàlla moom sañ nga ko jégalul yàlla de ndax bàkkaar la yàlla mën na ko jégal waaw waaye ab xeefeer moom bul ko jégalul yàlla de faram taf ka desut xaraabatun benn jege ñaala baynakum seen diggante bu baynum ak seen diggante ñoom xeefar yooyu laata sax faroo bu leen jégul lahum ñeen leen ndax mbokk doxatul fa wala jëne gaa yi nga xam ne xaalo wax nañ ne innoom naka ñoom istaxfiroon danañ jégul li abaayam ñeel seen baay ixtaju lay nañ bistixfaar ibrahima si jégulu ibrahima li abi ñeel baayam yàlla aaya nag ne buñ jégulul yàlla yonentu buñ jégulul taalib mu di baayam ndax dafa dee ci kéeféer jullit ñi buñ jégalu yàlla seen mbokk yi dee ci kéeféer ñu lay ne waaw Ibrahima daan na yàlla baayam fa qaala yàlla ne wa kaana nekkut istixfaar Ibrahima jégalu Ibrahima li abi ñeel baayam illaa an moom ak moom de lam yastaxfir jégalu li abi ñeel baayam dégg waadoo digg na ko anoona moom sa yastafru dina jégul loo ñeel ko rek mooy wax ji mu wax ne sa yastafru dina ma jégul lakka la rabbi borom sama ibrahima jégaluwut ñeel baayam baayam ji nag xam nga ne du baayam ji ko jur waaye baayam asara baayam ji ndaw la baay tëx la ndax ah, dégg kenn du wax ne sa baay diw te fekk mooy ki la jur de bu yàlla waxee li abi ñeel baayam asara kon du baayam dëgg-dëgg baayam ji ndaw la fi mu ko indi eh, waral na ko eh, leeral na ko ndax fii yonent bi salaa salaam mu ngi jégalul baayam ban baayam ku ne xam ne ne Abu Taalib du baayam bi ko jur baayam ju ndaw la de mu ngi koy jégalul jullit ñu nar ko cee roy nañu nañ jégalu suñu baay yi xam nga baay yu ndaw kon kon baay yu ndaw doon yonentu baay yu ndaw ñoom baay lañ ko tuddee ndax ñoom dañ nañ jégalul suñu baay yi te ndax yonentu mu ngi jégalul baayam yonentu baayam ju ndaw la doon jégalul Ibrahima tamit baayam Aasara la diggoon ne ko dina ko jéggalul rajaa ngir yaakaar an yuslima mu jébbalu wala aslama bu jébbalu woon la wafaa dana matal loo ñel ko maa waxadoo lam ko dig de dafa yaakaaroon ne bàyyam dina tuub su ko defee nag waaw mu mu ne na ko jéggalul yàlla bu tuubee daal mu jéggalul ko yàlla fala maalam muslim ba mu tuubu nag mu baat jéggalu ko de kon Ibrahima dafa diggoon baayam ak jéggalu rek ci kaw bu tuubee waaye jéggalu wut ñeel baayam rek laa wax de vraiment tabee na ba mu biree loo ñeel ko àndoo ne moom baayam jooju àdduwun noonu lay laay ñeel yàlla bi mawti ci déegim de yàlla kufri ci yéeféer tabara dañ na minu ci moom moo taraka mu bàyyi istixfaar jéggalu loo ñeel ko mastaxfara jéggalu ko de Ibrahima moom ne bu wóor ci kéeféer la de waaw jéggalu ko yàlla bana jéggalu ko de kon digal mooy yaakaaroon ne dana tuub bu tuubee mu ne ko dinaa la jégalul yàlla de sa astaghfiru kooku ci lu ñëw la boo tuubee dinaa la jégalul ba mu tuubutee nag yàlla xam ne ne norob yàlla la jégalul ko yàlla inna ibrahima nag ibrahima la awaahun ku bëri lu muy dellu ci yàlla kasiru te ku bëri toroxlu la waduwaan ak ñaan xalimun aji lewet la maanaam saburun mu ñaakoon la moom ibrahima alal azaa ci lor de lor yi ko nit ñi di lor daf ko daan muñ ndax sang mooy ku muñ lor kon ab xéeféer bu dee kenn du ko jégalul yàlla yonentu daf ko bëggoon def yàlla aay ko ko de wama kaana nekkul allah yàlla luy di la di réeral xaw ma naw nit baara is hadaahum gannaaw leen jubalee islaam yi si islaam xataa yu bay na ba te mu béral la um ñee leen maay taquna lañ war a teet mu ne amali ci jëf falaay taqu te ko nag dégg nga fastay qu ñee loo alit laa la réeral yàlla gindee ba dugal la ci lislaam balaa mu dana la won ne lii ngay def waroo koo def lii baaxut moytu ko li moo baax def ko nga xam li xam lu bon soo féeteerloo nag topp sa bakkan nekk ci lu bon te wóor ne lii lu bon la su boobaa nag xelloo nga noonu la yàlla di réeréer lu bon ba bàyyiwoo ko ndax sa bànneexu bakkan loolu nag ku xam ne nguur ak boppam moo koy def waaye ku samp nguur ak yàlla daal. lu wuteeg li yàlla bëgg lu mu mën a doon rek moom wutee naag loolu lu dëppoog li yàlla bëgg nag loolu rek lay dëppoo rek laa wax de waaw te yàlla lu mu bëgg ci jàmm bi rek moo di jàmm ci moom waaw lu dul yàlla bëgg rek musiba la rek laa wax de boo ko yaakaaree xewalit musiba la mu ngi dugg rek ca taaral ak iblis law sëy nan dara ma taaral loom ñee leen fil ardi si suuf yi la mooy jël lu bon loo xam ne musiba rek la ñeel leen ma rafetal ko seen bër ngir ñu mën cee dugg comme kuy fiir rek ab rab bu mu bëgg a jàpp rek laa wax de noonu la iblis di def jël fi taaj ay lekk yu ndaw taaj fa rab yi bu ñëwee yaakaar ne lii xéwal mu dugg ci biir daal di ko jàpp waaw ñu jàpp rey de iblis noonu lay def jël lu mel ni taar wan la ko nga xamee mbir ma dal di ci dugg boo ci duggee rek waaw fit ak iblis gi jàpp la mu daal di rey sa roxo nga daal di réer loola waral lépp lu neex sa bakkan nga xool gis na wute naag li yàlla tëral ba ko njub nekku ci de réer la njël benn ga bu neexee it mujj gërëccu rek lay mujjee rek laa xare xoolal daal bëgg-bëgg yàlla ci kaw suuf nekkal ci loolu bu ci ñëpp nekkee nekkal ci loolu bu ko ñëpp bàyyee suubaa ngay julit wutee rek sa bakkan bu wuteeg yàlla kon bu la yàlla wanee ne lii jub la defal bu la wanee ne lii réer la baaxut bàyyil yàlla na ngeen balaa ma leen réeral gannaaw mu leen jubalee ba pare balaa ma leen réeral dinaa leen leeralal li ngeen war a ba yépp su ngeen ko bàyyiwul nag continuer di ko def dëgg-dëgg yéen bu ngeen réeré seen bopp soo baaxee loo ngeen réeré noonu la yàlla di réeré mooy wan la ne la bàyyi lii baaxut nga xam ko bay di ko def bul sàcc nga xam ko di sàcc bul fen nga xam ko di fen waaw bul njaaroo nga xam ko di njaaroo dégg nga <laughs> bul waaw xuruj nga xam ko ba waaw di xuruj waaw bul jëw nga xam ko nekk ci rek xam ne jëw baaxut waaw waaye saa su nekk yaa ngi ci dara gori di jëw rek waaw bul kañaan nga xam ne kañaan baaxul waaw nga di kañaan waaw bul ngistal nga xam ne ngistal baaxut te saa su nekk yaa ngi ngistal doomu aadama yi waaw bul jublu dul yàlla sa jëf yaa ngi wax waaw ngir leneen lu dul yàlla sa bakkan bopp rek wala boog yeneen i mbir dégg nga su boobaa yàlla dana la réeral far sa xol ba mën ngaa mujj sax nekk kébeer noonu la yàlla di réerale kon képp ku xam ne lii bon na ba pare nekk ci na tiit ndaxaw na bunt boo xam ne nii ku fa xaw rek amaana réer ci nga jëm moom la yàlla waxoon wala tatabel hawa bul topp bànneex fooy di la kan sari an sabilillahi dana la réeral war ci ne lii baaxut daal waaye neex na la nga nekk ci rek réer rek ci ngay mujj kon laa ji wane na ndeke bakkaar dina dugal nit ci xébéer mooy xam ne lii baaxut nga sax sa di ko def mën naa tax nga dugg ci kéeféer rek laa wax de bu ma kaara nekkul allah yàlla luy di la réeral xawma nit baari sax daawam gannaaw mu leen jubale li islam jëm ci lislaam xataa yu bay na lu muy mu béral maanaam leeral la um ñeen leen maa taqul lañ war a teel maintenant mu di ci jëf falaay taqawu falaay teetuñ ko nag fay tay ko danañ xelloo ay laa la réeral buñ ko teetul nag di def lu bon te xam nañ ne lu bon la ñooñu foo ñu réer réer gi mën naa ba dugal leen génn ci eh, ba dugal leen ci kéféer inna laa nag yàlla alimu la mu bi kulli seen ci lépp lu nekk wa minhu na ci mustahiqul idaal idlaali ñu xelloo réeral wala idaayat ak njub yàlla xam ne lépp bokk na ci lim xam moom yàlla ñi nga xam ne xelloo nañ waaw mu réeral leen na ko mulku samaawaati nguuru asmaani juróom-ñaar wala ak suufi juróom-ñaar yuxii dana dundal waaw comme bëgg a dundal wuyu mi dana mu rey waaw comme bëgg a rey maalakum ñeelu leen ayoon naas yéen nit ñi min duni laay ci dul yàlla ay xëy dul yàlla min waliin ci aji wët yax fasakum dana leen wëttu minu ci moom de wala nasirin du caagin aji dimbale yem naakum dana leen dimbale min dara yi ci loram yàlla xam na lépp bokk na ci lim xam ñi mu jubal leen xam na dana leen jubal de yàlla moomu moom moom nguuri asamaan juróom-ñaar ak lépp lu kawe rek moom moo ko kaweel waaw lu wàcc moo ko wàcce moom moom lépp kenn moomu dara mooy dundal ku ko neex te moo koy wërsëgal de waaw mooy rey ku ko neex waaw su waxtu ba jotee te kenn mënu ci dara te képp ku mu bëgg waaw mbugal amul benn kilifa gu la mën a wëttu ba yàlla du mbugal waaw amul kenn ku la mën a dimbale waaw ba lor bi yàlla du dal sa kaw rek laa de kon kooku dañu war a jaam boo bàyyee nag buur boobu di topp intérêt wala bëgg-bëgg ñeneen ak luñ màgg-màgg yaa ngi ànd ak sa bopp rek laa wax na yàlla mi leen màggal moo leen gën a màgg su boobaa yàlla moom nga war a topp ngir maa dem waaw balaa ngay topp ngir maa ne keneen rek laa wax de in uridu islam mastatuma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu